nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko di mu dakkal li nga xamante ni moom moo di grève de par rapport ak loolu. waaw euh, d'abord maa ngi nuyu ak ziar sëñ Mountakha Mbacké di ko ndokkeel ci weer bu tedd bi di weeru maamam ju tedd yi muy Cheikh El Khadim weer boo xam ne ci la ko boroomam yëkkati. Hmm. ci kaw ñi nga xam ne bañoon nañu mu motal mission bi bi ko boroomam dénkoon mm-hmm. muy weeru màggal gi donc ñu ngi ko ciy ndokkeel di ñaan yàlla gan yi kay fekk si ñoom fekk si ko ci jàmm demaat bàyyiwaat ko tamit ci jàmm mu yàgg ko tal yàgg ko fekkee sembam yi mu am yëpp ci yoon bi ci réew mi yàlla na ko yàlla mottali euh, damay rafetlu geste bi ndax loolu mooy cëram dëgg-dëgg mooy kilifa la boo xam ni sénégalais yu bëri da dégg ñu koy woy le père de la nation mm-hmm. ndax jàpp nañ ni dafa boole uuf réew mi ñëpp muy opposition comme pouvoir société civile ak parti boo mënta bokk jàpp nañ ni moom benn bët bi la lay xoolee kooku su demee ba am kenn ci doomi réew mi rawatina koo xam ne du n'importe kii ci réew mi mun nañ ne mooy la chef de l'opposition nekk ci jafe-jafe gii mu nekk face au président face au régime te mu am yu jiitu woon ak nam fa demee demee fa su defee li mënum lu dul tàccu mun lu dul ñaan yàlla na ko yàlla fay jëf ji mu def et di yéene gi mu ci am yàlla na am suite mooy Ousmane Sonko jël tàndar maje xewaloo ko yàlla def mu jëlee ci tan génn ci grève de la fin bi waaye it ñi ko teg loxo it mun ko bàyyi man jàpp naa ne loolu mooy yéene sëriñ bi et yàlla dana ko def incha allah rabbi donc euh, lu ñu mel sax Chasseman dafay fàttali euh, Karim Wade li nga xamante ni jàppoon nañ ko mu door li nga xamante ni moo di ak grève de la faim euh, ba ki nga xamante ni moo nekkoon xalif bi suma jumu di sëriñ moo mati lay daal di sàkk woon ci moom mu daal di koy dakkal donc mu mel ni aussi tout le loolu lu ñu mel sax maa ngi dégg barki dem démb suñu xawoon di Badara Gadiaga moom muñ ko doon fàttali donc mu nekk aussi lu am solo pour wutal yéex euh, que ni rek lu lu baax yàgg na jógee ci li nga xamante ne ñoom ñooy suñu ay xalif réew mi aussi ñoo am fi kàddu lool ba saa ñu waxee dara rek ni ngi daal di koy jëfee mais ndax lu ni mel jàpp nga ni euh, moom Ousmane Sonko ni ko sëñ bi ñaanee woon ca événement mars bi moom ak ñi mu àndal ñu daal di dakkal la ñu nasoon ndax bi lépp yoon tamit euh, lu ni mel dina ko wéyal ci nu mu gën a jaawee donte nag dégg naa ce matin imam Dramé di dëggal ni Ousmane Sonko mi mu xam. Euh, dans les jours à venir dinañ dégg ni dakkal na crème de la femme ndax dina wéyee ndigal. ah li ma gëm mooy dana ko dakkal Ousmane Sonko nit la koo xam ne saa yi ko kilifa yi ñaanee day maye. du tey la njëkk période bi bi waa yeewi jàppee seen manifestation bi ci seen liste dëkk bi xat tar lool <coughs> ay kilifa jug di def médiation ñaan ñaari côté gis nga biñ ko ñaanee maye na du dëgg. mars 2021 biñ ko ñaanee may na sëñ Muntaxa Mbàkkeel Bachir wax na ko ba wax ne dama leen ameel ab bor léegi xam nga lan moo jar a taxaw bor bi may mën sa doon wax keroog waaw xam nga lan moo jar a taxaw lu tax pend Ousmane Sonko ah nit ñi di wax ne moom moo indi ay nit yoo xam ne ci politique gëmuñ sëriñ si te saa yu ko nit ñi bëggee ñaan dara ci sëriñ si lañ koy jaaree loolu du contradiction saa yu ko nit ñi bëggee ñaan dara ci sëriñ si lañ koy jaaree te ñu ko ko ñaanee moom. déggoo benn yoon ñu ne Sonko sëriñ si ñaan nañ ko mu bañ kon xam nga kooku jox na cër kilifa diine yi teg na leen fi mu leen war a teg fonk na leen ni mu leen war a fonkee kon ñii wax naan Ousmane Sonko ñoom àndal joxuñ cër kilifa diine yi loolu maanaam du lu dëgg ndax li preuve yi mooy jox na leen cër. ba tax nit ñi jàpp loolu bon man dama jàpp ni am na benn. am na ay nit yuy wax ci réseaux sociaux yi kàddu yoo xam ne naka surul noonu la di ko jëmalee ci kilifa diine yi et ñooñu ay nit lañ yoo xam ne bokkuñ passif du sama Ousmane Sonko ko moo toog ca Touba ne képp kuy xotti war ma kilifa diine yi xoo ci ñun kon pour pourquoi nit ñi ñoom di chercher plus au delà de waxu nit ki pourquoi ñuy chercher ñeneen ba bëgg leen jël affilé leen passif ñaata yoon nga gis ay responsable passif génn na la diw ak diw bokkuñ ci ñun. li leen nit ki wax loolu nga mun a jàpp effectivement donc kon li ma gëm mooy nit ñi nañ jàpp li leen Pastef di wax officiellement léegi nag man li ma gëm mooy Sonko dana maye mais nag maye bi tamit du yomb dogguma la foofu cheikh bi mais pour ne pas perdre le fil est-ce que tamit tey ji jotul woon wala woon erreur ci hmm. cadre Pastef yi bi ñenn nit ñi jógee di wax ci seen tur di yàq li nga xamante ni moom mooy seen projet di yàq li nga xam mooy seen combat ba confusion di mën a am ba ñeen ñi jàpp ni Ousmane Sonko léegi ko tax a jóg or ni loolu taxu ko jóg est-ce que tamit mhm. ni ko Abass Fall defee leeral ni Akhenaton saaga yi muy def moom la engagé ñoom engagé wu la mais plusieurs fois ku mel ne Abass Fall wala El Malick indi nañ précision yu mel noonu ba boo xoolee ñooñu ñuy wax dañ leen di attaqué ñoom plusieurs fois ku mel ni El na poste bu mel noonu ku mel ne Amadou Ba da koy def boo wàccee page am di ko fekk ku mel ne Abbas Fall tam da kay def parce que foog ñu xam ne ñi composé Pastef ay sénégalais lañ parmi les sénégalais y a les mourides y a les tidiane y a les xaadir y a les laayeen y a les chrétiens y a les athées y a les Sénégal ci ñooñu les militants Pastef yi boobu militants Pastef yi ils sont pas sortis du néant sénégalais lambda yi dëkk ci société bi la amaana sax mos a milité ci beneen parti ñooy solu Baye Fall dem màggal Touba ñooy joxe ci woote travaux sëriñ bi ñooy dem gàmmu Tiwaawan ñooy joxe ci liggéey jumaa ñooy dem Layeen ñooy dem Medina Baye te gëm naa ne Ousmane Sonko kenn ëppalewu ko ay militant ci kër sëriñ soosu kon munta nekk ñooñu appartenir kër yooyu ba pare di xotti war ma sëriñ ci et li koy dëggal Pastef dafa gañe grande ville religions yëpp nan la ñi ñi yaru ci keppaaru sëriñ si di leen xidma di leen liggéeyal nekk militant Pastef ba pare weddi sëriñ soosu xam nga bu fekkoon ne Pastef discours anticlérical la indi anti religieux anti maam clergé yu fi nekk Pastef du gañ kër sëriñ si loolu c'est dangereux sax ngay wax ni kiy gañ kër sëriñ si gëmul kër sëriñ si lool dafay mel ne da wax ni ñu dëkkee kër sëriñ si gëmatuñu sëriñ si. d' accord mais daje bi ñu daje tey jii ak ki nga xamante ni moo di moo di moom mu taxaw fan la mm. jóge ak kan moo ko kan moo ko kan moo ko sabab lu tax tey ji ñu dox ko ci période bi bon xam naa ne daal waa waa yeewi ñoom seen yenn seeti kilifa gu tedd gi sëñ Muntaxa ndax jàpp nañ ni lépp lu ñu nekk mu jafe wala mu rek solution mun na balee ci moom. biñ demee it kilifa gi yëkkati na ay kàddu jëmee ko ci ñoom waxtaan ak ñoom ci taxawaayam ci position ak yéenam tamit ci Ousmane yëkkati na tàndarma ñaan ci ngir mu barkeeloo ko ngir lu bëri ci jëmm ju tedd jëm juge waaye tamit yéene gi et puis symbolique parce que au la de mbirum baatin au-delà de li Serigne Mountakha wax ñaan Ousmane pour mu dakkal grève de la faim bi dafa am message bu mu lancé l'état du Sénégal mooy bu Serigne Mountakha yëkkatee lekk. jox ko koo xam ne yaa ngi ko téye mooy grève de la faim mooy sëñ taxa bëggul kooku ñàkk lekk. Mm. bëggul kooku ñàkk wér. Mm-hmm. léegi nag yow yow mi ko téye ndax dinga nga message bi la sëñ Muntaxa lancé maa message bi dafa am wax dafa am lees waxul bu jëm ci état bi. mooy kii ngeen téye mu ne ci jafe-jafe loolu du sama yéene bëgguma mu ne ci jafe-jafe bëgguma mu xiif. Mm. donc Ousmane daf ci am rôle waaye l'État moo ci ëpp rôle. état moo ci ëpp responsabilité ndax sëñ Mountakha moom waxe na waxe na wane na position wane na ni position lii la mooy Ousmane Sonko jafe-jafe gi mu nekk mu génn ci. mais nañ déggee l'état du Sénégal de décortiquer. mais nañu nañu déggee keroog ñoom de ñoom euh, euh, euh, leader yeew yi ba ñu génnee nañu waxee wax ko ak xel mu dal ñu dégg tout le temps ñuy revenir ci moobu am nañ xel bu dal am nañ ci yaakaar ndax mu ne sañoo njort ni sëñ bi tamit da leen dig ni dina dox ay jéego peut-être ci lépp lu jëm ci. waaw man gëm naa ni effectivement moom ginnaaw bi mu leen joxee li nga xam ne mooy xewal googu di tàndarma wax na leen li mu ngi xaar ci Ousmane waaye it moom lay cëram dana ko def lay cëram du leen lu dul wax ak ñi nga xam ne ñoom la war a waxal ngir Ousmane génn ci xat-xat boobu. moo tax waa yeewi na la am nañ xel bu dal am nañ yaakaar. d' accord Cheikh Ousmane dafa am leneen lu attiré sama attention ba tax ci bu ni mel. Hmm. ba génnee eh, bi Aïda Mbodj di di waxante ak ñi nga xamante ne di taskatu xabaar yi fa nekkoon dafa am benn moment euh, président Habib Sy euh, euh, daal di jël kàddu gi ni ko li mu wax la fas yéene bamtuwaat ci li nga xamante ni moo di kàllamay tubaab. Hmm. donc bi mu ko waxee la moo ca def mooy dafa leeral. Hmm. ni dëcc Déthié Fall teewul parce que mm-hmm. dafa voyagé nii docteur Cheikh Tidiane Dieye teewul parce que dafa jàpp su ma jumu loolu la wax mm-hmm. mais gisuñu mu tudd ci ki nga xamante ni moo di xali Khalifa Sall ndax précision yooyu mu def quelque part coup comme la woon pour wane ni Khalifa génn na définitivement ci Yewwi Askan bu ñu gisee ni dafa préciser lim ñenn ñi mm-hmm. te dégguñu fa turu Khalifa Sall ah xam nga li wax bokkut ak li Khalifa wax c'est-à-dire ñoom ba ñu defee seen communiqué ah, moom ay waxam gis nga xalifa Sall mënut a bokk benn cadre ñu bind charte cadre bi définir lan mooy engagement wu cadre bi wax ni ku ko rompre génn nga ci cadre boobu ñu nekkoon mu rompre ko ba pare na mi ngi fa loolu waxi dof la gis nga même bu turu yeewi su ko Khalifa moomee euh, nu mu tudd protéger ko BSDA mun ta bokk ci mu yeewi il peuvent changer de nom c'est-à-dire foog nit ñi am lucidité wu xam ne taxawu Dakar c'est auto exclu de yeewi askan bi de la même manière ba ñuy taxawal yeewi ñenn ña fa nekkoon génn nañu auto exclure seen bopp ku mel ni Bougane et autres Khalifa bokkatul taxa bokkatul yeewi yeewi dañoo wax ne ñi ko composé doo am compromission doo am compromis en solo avec le régime en mais place mais na defal compromission. ah kon li mu def lan la. nee na defal compromission xam nga moom xoola yow bu la neexee xam nga bu la neexee. Ah nga ñëw taxaw xool naaj bi ba mu neex la nga ne du naaj làmp la waaye n'empêche nit ñi moom xam na ne naaj la. Khalifa Sall si auto exclu mun ta fexe fexe fexe fexe fexe ba bokk yeewi génn na yeewi loolu c'est clair. mais xam nga depuis lors ñenn ñi dañ doon jàpp sa nit ñi li ñu doon xaar moo di. yeewi bés bu defee li nga xamante ni moo di jënab taskatu xabaar yi mm-hmm. ñi nekk ci conférence des leaders dëggal li nga xamante ni diir nañ ko ci communiqué parce que ba tey am na ñu doon jàpp ni communiqué bi ñi di def confusion mm-hmm. ñii di am ñii di am euh, xel euh, xel ñaar ci kan moo war a naan leader yi signéwuñ ko bi ci kan la jugee recevoir fi man sax recevoir naa fi benn benn membre de de taxawu Sénégal mm-hmm. mu mu communiqué bi kenn ku nekk ci waa Pastef moo ko bind ak yu ni mel gis nga keroog sortie bi nga xamante ni El Malick def na ko ak suñu concert bi nekk Sen TV gis nga muy leeral ni ñoom communiqué bi ñoom waa passé binduñu ko ak yu ni mel donc pour te ni confusion am na ci ko bind donc tey jii président Habib Sy bu ñuy wax li dafa mel dafa dëggal ni Khalifa ñoom dàq nañ ko te confusion boobu noonu waa taxawu ko bëgg créer ak ñu bëgg semer le doute biir yeewi Pastef euh, parti Habib Sy mun a busoo Déthié kenn amu ci sañ-sañ publier communiqué boobu signé conférence des leaders Yewwi te déggoowuñ ci léegi nag li tax taxaw di jéem a semer doute bi ci xelu nit ñi mooy l'électorat bi mu soxla mooy PUR et autres buggul wara ñoom officiellement les responsable de PUR gis nañ ne taxaw mi trahir na seen nu mu tudd seen pacte yi leen lié woon loolu day bañ perdre l'opinion ngir mën a am maanaam électorat bi mu yàgg parce que loo ci mën a xam taxaw amul électorat li ëpp li mu doon tibb sax PUR la. donc pour ne image am ñaaw ci waa PUR ak ñeneen ñi ko doon voté Sénégal élection yi mu gagné yëpp te mun nga ne am mun nga mun nga ne taxaw lim gagné yëpp cinquante pour cent yi PUR la woon Khalifa aventure politique bi mu nekk yëpp en solo PUR da ko ci accompagner électorat PUR daf ci doon fii léegi nag pour ne perte perdre l'image devant les militants et sympathisants du pure moo tax ñuy wax ni du responsable du waa PUR PUR bokkuñ ci par exemple ay nit yu buggatul xalifa ñoo bindal déedéet les responsable de du PUR du PASTEF du PRP des autres mouvements ñoo d'accord signé ne taxawu dàq nañ ko. léegi nag ñoom. pour ne pas perdre l'électorat ak l'opinion ñu war naan non des et cetera des et yooyu ñëpp ci lañ bokk ñoo ne dàq na leen. et wax ni c'est important. ma mm. suivre naa docteur Cheikh Tidiane Dièye ak sama. Euh,